tabarakallahu Serigne Cheikh Ahmad Tidiane jërëjëf ci li nga indi ci dakar bi ak ngeene li ci aju lepp fa tabarakallahu loolu jaron na dem ba fa gën sori ci aduna bi ndax man ko mang waxuma lak mu nek suñu biir rew kon yalla ñu yalla téyel ndono bobu nonu ñu gëreem bu baax Sidi Ahmad Tidiane yalla ko yalla may gudd fa yalla may wër euh Serigne bi suñu ñaareelu question nak ñi ngi bëgg ñew ci rew mi ndax moy actualité bi senegal def nañu élection 2024 changer régime bi fi indi indiwaat benen régime tabarakallahu teg ko nag ci génération te mooy ay ndaw yu nga xam ne indi nañ xëy na gis-gis bu bees ci politique indi nañu doxalin bu bees ci politique boo xam ne Sénégal miinu ko woon yàlla séddee leen li ëpp ci ndaw ñi jox leen bopp ba yàlla dogal nag ñu euh, sottal seeni mbébét teg leen ci bopp réew mi loolu nag fa tabaarakallaahu su amee euh, xëy na am na ñu gëm ne ñaan a ngi ci biir waaye am na ñoo xam ne it nee nañ mbir mi dafa ne lay cëpp rek waaye benn ñaan amu ci léegi nag ci jàngatu borom xam ak ci tànninu réew ak ci koo xam ne mag ñee la yar lan mooy place kilifa diine ndax mun na fal ci wàllu baatin wala mun ta fal ci wàllu baatin ak li nga xam ne que mooy wàllu élection loolu daal bëggoon nañ nga ñëw ci fa tabaarakallaahu ak itam ñoom ñi nga xam ne yàlla dogal na ñu ñëw ci bopp réew mi lan mooy yaakaar gi ñu war a am ci ñoom ëllëg ci Sénégal ci wàllu justice ci wàllu économique ci wàllu dal ci wàllu jàmm ak euh, fi ñu jëmee réew mi tabaarakallaahu xaj wilaan ñu ngi lay gërëm di la sant question bi am na solo xam nga borom bi subhanahu wa taala da fay fal ci ñetti pouvoir pouvoir bu ñëk bi pouvoir bu boppam la moko jago mom la wax ni qul illahumma malika al mulk tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'u al mulka mimman tasha' pouvoir bobu yàlla ko jago moy fal ku ko neex di folli ku ko neex ci pouvoir bobu nak la fale président Diomaye mu jité Sénégal ndax bu ñu delluwaatoon juróomi weer ci ginnaaw buñ la waxee ne la jomaay mooy nekk président doo ko gëm mukk waaye Cheikh Sidi Hadji Malick Sy na wax ne yàlla buñ ko doon wutal sant njuuy leen koy santale tabaarakallaahu moo tax mag ñi ragal ko di toog ci diggante xawf ak raja moo tax duñu xeeb kenn kon pouvoir bobu nga xamne ci la yàlla di yëkëté ku ko neex pouvoir bobu ci la jomay falo yàlla fal ko motax serigne sëriñ sépp nangul ko ndax serigne itam du nekk opposant du nekk ci opposition lutax ndax ku fi yàlla tek rek ñom dañuy dugg ci ar-ridha bi qada'illah nangu dogalu yàlla waradini bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmaanu ya allahu moo xam neex na leen wala neexu leen dañuy nangu dogalu yàlla moo tax ma gis Tiwaawoon bi jomaay demee am ñu jël sëriñ Moustapha Sy Al Amine mel ni la mu waxoon démb tabaarakallahu da caa génnaat fekk xalifa bee woote rek woo njaboot gi ñu ñëw mu wan leen ne kat kii fi ñëw kilifa la go xamne ne yilif réew mi yëpp ñoom itam ñu ñëw jox ko cëram nangu dogalu yàlla xam nga man mi di wax ak yow tay yalla nga dogal Macky Sall rek la bëgg li tax ma bëgg ko itam yalla ko def ci sama xol te man duma ma naa feq bi ci dess itam ma bëgg ko ngir sama serigne serigne Abdou Aziz Al Amin ndax itam ihfaz wudda abik kóllëre gi nga xam ne seqoon na ko Macky ak li Macky defal Tiwaawoon defal ko këru diine yépp tabaarakallaahu defal ko diine ji defal ko tarixa bi defal ko mboolem turuq yi Tuuba Canaba Laayeen tabaarakallaahu Ñaseen ba ca Tiwaawoon lam fa def képp ku dub jullit rek defal na la ko kon ñu ko bëggee ngir taraanga googu mu ñu defal ba tey yay na tabaarakallaahu ndax yonent bi daan na wax ne tahaadu tahaabu su ngeen bëggee soppante di leen joxante ay taraanga tabaarakallaahu moo tax sax ci azaka ñuy jox koo xam ne bokkul ci diine ji ngir mu am cofeel ci lislaam kon nag bu Macky jëlee ay tarangaam def ko ci këru diine yi mais foog ñu sopp ko cofeel googu moo ñu sopp ci moo ñu yóbbu ci moom ñu bëgg ko boole gi itam tabarakallahu yàlla dañu wax ne wuute bëgg-bëgg moo tax marchandise tubaab bi di jar <laughs> waaw kon nag mënuñu euh, amum réew réew mi war a nekk benn parti boo xam ne ñëpp dañuy ànd rek ci diw mii rek lañuy ñuy bëgg ko bëggul baaxuloo déedéet abdu Diouf moo waxoon ne jàkk jàngoog ku mën a nodd na nodd mooy na candidat yi bari tabaarakallaahu kenn ku la neex àndal loolu mooy démocratie kon nag ñun yàllaa ngi ñu nattoo ñu bëgg Hadj Macky Sall du tee nag président joma mi fi yàlla teg ñu ñaanal ko yàlla yen bi tiim ko te bañ a tegu ci boppam yen bi yàlla fal ko ba la ñu yéene réew mi ci ndaw ñi am xëy li ñu yéene réew mi ci ko feebar faju li ñu yéene réew mi ci wàññi dund bi ak yeneen ak yeneen ak yeneen dindil ñu fi caisse noire gii nga xamante ni tabarakallahu euh, président Sonko dafa waxoon ne dafa xaraam te lu xaraam nag moom da ngay bàyyi léppam ndax naan sàngara moom dañoo wax ne ki naan butéel bi ba mu jeex ak ki ko siitaatu ñoo yem bàkkaar <laughs> ah kon nag ñu wàññi ko ñu bàyyi ko fi ñoo yem dindi ko fi daal mooy li gën waaw fashtani buuhu la yàlla wax kon dindi ko fi daal moom moo gën caisse noire moom na dañ faux commun yi itam yi ñu wax ñu dindi ko fi ci diggante duwaan ak euh, tabaarakallaahu euh, nuñ koy nuñ koy tuddee ti impôt et domaine parce que yooyu yëpp alal ju xaraam la joo xamante ni Ah, ñi koy lekk xam ne ne ñu ngi duufal seen yaram ci safara ndax alal ju xaraam soo ci dundalee sa yaram tabaarakallaahu mën nañu wax ne alal ju xaraam jooju boo ci dundalee sa yaram safara rek moo ci yey sa yaram woowu la kon jomaay yàlla nga ko fale ci pouvoiru boppam moo tax sëriñ sëpp nangu nangul ko du ne dañ koy xaaraan déedéet sëriñ si yaakaaruñu kudul yàlla waye dañoo nangu dogalu yàlla waaw dañoo nangu dogalu yàlla tabarakallahu bi ci dess muy pouvoiru ñaarel bi muy pouvoir bi nga xamne yalla ko momal bopam waye daf ko abal buur bi mu fal ndax ku ne xamna ne innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha wa jaalu aizzata ahliha adilla jigéen ja ko waxoon di balqiis booba Souleymane la wax ne buur la yàlla fal na ko waaye tey bu duggee ci suñu dëkk bii tabaarakallaahu ñun ñi teddoon nekk ci kaw mën nañoo teddadil wàccee ñu jël baadoole yi féete woon suuf mu fal leen kon nag buur yàlla da koo abal pouvoir boo xamante ni moom itam dafay fal di folli moo tax jomaay bi mu faloo dégg nga daal fa defal gouvernement am daal di fal sonko kon fa sonko ko ko fal jomaay yu ko fal waaye jomaay boo ne ku ko fal danga naan yàllaa ko fal sonko ku ko fal jomaay yu ko fal par décret Pape Alé Niang ku ko fal RTS jomaay yu ko fal par par kan moo wàccee tabarakallahu euh, déedéet euh, ki nekkoon ci armée bi Moussa Fall général Moussa Fall ku ko wàccee jomaay yu ko ka mu teg place am ku ko fa fal jomaay yu ko fal kon nag yàlla am na pouvoir boo xam ne pouvoir la mais def ko able pouvoiru ñetteel bi nag moom la jox wëlu yu yàlla yi mu di sëriñ si ñooñu itam dañoo dugg ci inna lillahi ibadan iza aradu araada te ñoo ñoo gën a dangere yàlla am na jaamam yoo xam ni ay jaamam lañu waaye yàlla nee na sama bëgg-bëgg fee laa ko teg ñoom laay xool lu ñu bëgg moom laa bëgg su ko defee ñoom itam ci seen kurus mën nañ cee fal mën nañ cee folli loolu nag bu ko séentu ci ki sant si wala ki sant mbàkke wala ki sant ba wala ci ki sant ñas déedéet yàlla ay wëlu yoom daf leen a nëbb mën na nekk jaaykatu këriñ bi ngay romb mën na nekk ki toog ci bitigam di jaay mën naa nekk borom atelier tailleur bële nga foog ne du dara mën naa nekk kële ca tool ba di bay mën naa nekk mën naa nekk mën naa nekk kon yàlla dafa nëbb ay waliyo waaye nag du tee nag am na fuñ ko gën a fooge mooy ca daara ja ca kër sëriñ sa foofu leen ko gën a fooge kon yàlla pouvoiru boppam pouvoir bi mu jox ñi mu jox nguur ak pouvoir bi mu jox ñi nga xam ne ñooy ay waayam moo tax bu ma déggee ñu ne jomaay benn sëriñ ñaanalu ko loolu dafa may jaaxal parce que nit mën na laa ñaanal te doo ko yëg ah nit mën na laa ñaanal doo ko yëg moo tax ñuy bëgg tabaarakallaahu ngay def lu baax ba saf nit ñi ndax danga saf koo xamante ni fa mu lay ñaanalee sox ba tàkk doo ko yëg waaye ngay fexe di moytu safadi nit ñi ci reewande ak ñàkk yar ba am ñu la jéppi ndax bëri na koo xam ne jéppi na la ba ñaanal la yàlla la nga doon yóotu doo ca jot mukk kon tabaarakallaahu jomaay daal man jàpp naa ne ñaan ko fal ñaan googu nag mën na nekk wayjuru boppam ndax ku xool wayjuram xam ne taalube la nitu yàlla la muy wayjuram wu jigéen de wayjuram wu góor ku xool jamaa itam xam ne ñaari waajuram ay nit ñu baax lañu ndax wal baladu tayibu yaxruju nabatuhu bi iznillah bi izni rabbi maanaam ñu baaxee ni ñaari way juru président Diomaye ku baaxee ni Diomaye rek lu nu mën a jur moo tax ma déggee yaayam wax ne ñun at mu ne daañu dem Tiwaawoon gàmmu te Jomaay am na ñaari frère kenn ki ñu ngi ko tuddee Sëriñ Mansour ki ci des ñu ngi ko tuddee Alaaji Abdu la dëggal loolu mooy keroog bi Jomaay demee Touba ak taalu bi la fa wane xorma bu mat sëkk kuy murit rek sopp ko ci yar bi ak teggin mu ñëw Tiwaawoon wane fa taalu bi gu mat sëkk ñu jiital ko julli mu julli julli gu wér dem ci raw du sëñ Babacar Si toog toogaayu taalibe bu rafet nga xam ne toogaay bi amul tëkkalluf ah, léeg nga jis ko toog ci malaanu wasifa nga xam ne miinu ko aw léeg nga gis ko toog di julli nga xam ne miinul julli dafa mbëkkanteeg julli gi waaye na mu toogee ci rawdu ba gannaaw ba mu sëlmalee naafilaam na mu wëlbati ko jàkkaarook rawdu bi nga xam ne kii yàgg naa toog ci raw du nitu yàlla di ko ziyaara kon la ay wayjuram waxoon tabaarakallaahu ci seen kóllëre ak Tiwaawan ci wékku gu fa wékku moom ci boppam feeñal na ko waaye nag la cheikhul islam Baye Niass daan wax ne sama taalubeeg Tiijaan duma ko fésal ci barab bu ne waaye saabu werdu jotee rek nee na ku ñëw xam ne Tiijaan la waaye suma ma werdee wadifa ba noppi je ma ab rek lay nek lolou moy ak ragné lolou moy lolou moy ak kon ñetti pouvoir ya ngok pouvoiru yalla bi muy falé mom la falé pouvoir bi nga ne ko jox ko ko ci la par décret pouvoir bi nga pouvoir Le ba mu ngi fi xam nga la wax mbir gis nga wala taqul qad dhahabat arbaabuha fa kullu man saara ala darbi wasal bul wax mukk ne li fi mag ñi defoon jeex na déedéet ku jaar fa ñu jaaroon am cër ba ñu amoon dama lay jox benn exemple ndax wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu athimun xalbu yàlla nee na li ma la defal bu ko nëbb ndax boo ko nëbbee sa xol mën na bàkkaarloo gis nga dama am benn jigéen ju baax ju ñuy wax Adja Nafi Ngom Keïta ku baax la maa ngi koy nuyu di ko ziyaara yonent bi mooñu boole. Ngom Keïta bu nekkoon OFNAC. waaw bi nekkoon OFNAC sama jigéen la tabaarakallahu boroom këram Keïta yal na ko yàlla yërëm sama xarit la maa ngi nuyu itam njabootam di ci jiital fadilu Keïta tabaarakallahu Eh, yàlla dafa dogal yonent bi moo ñu boole dama nekk duniya di waxtaan benn tàkkusaanu àjjuma di waxtaan ci yonent bi mu dégg waxtaan wi jooy ba mën a tulatee boppam ne borom këram kii di waxtaan dama ko bëgg a gis borom këram ku baax la ku am yërmande ci jigéen yal na ko yàlla yërëm Keita daal di taal otoom ñëw rajo Dunia fekk juste ma jeexal sama émission bay wàcc bi ma wàccee ñëw fekk ko mu taxaw ci bunt bi ñu nuyoonte mu ne ma yow laa doon xaar sama soxna daal mu ngay jooy te noppi ngir yonent bi nga doon waxtaane ma bëgg nag nga dem mu gis la ndax xelam dal ma ne ko amul benn problème incha allah comme ñu ngi dëkkoon HLM euh, rajo Dunia mu ngi HLM ma ñëw dugg ci oto bi ba mu ngi yor benn oto boo xam ne benn porte la di pojo su ma jëw juumul Peugeot wala deux wala Renault yàlla dogal bi ma ñëwee fekk ko ci kër gi mu nekk jigéen ju tedd ju baax ñu wëllërante maak moom ak borom këram mu jigéen nag ma leen di seet si ñu may seet si ba bis moom ajaa na fi ànd ak borom këram ñëw seet si ma boobu maa ngi dëkk ci rue bi ci Castor jàkkaarlook jëppal sama fenêtre boo fa taxawee da ngay jàkkaarloog kër Alioune Sall oustaz boobu maag Alioune Sall ñoo nekk rajo Dunia boo xoolee samay émission ñaari fu ma jeexalee rek damay gërëm fu may commencé rek damay gërëm Alioune Sall ne maa ngi gërëm Alioune Sall ci tafsir bu am solo bi muy def yal na yàlla yaatal dënnam yal na yàlla barkeel làmmiñam gis nga yàlla yàlla jooju ma ko doon waxal dem naa ba yëg ne yàlla barkeel na dënnam barkeel na làmmiñam moo tax yàlla yàlla bu jëmee ci lu baax bu ci xeeb dara bu jëmee ci lu bon bu ci wóolu dara ndax bu làmmiñ barkeelee rek yàlla dëggal Alioune sàll maa ngi koy nuyu di ko ziyaara bu amee ñu ko seet ci këram dafay ne ko ñun kat dañu bëggoon a ziyaare ji Cheikh Ahmed Tidiane Ndao moom Alioune Sall ci tawaadu am ci modestam mooy ànd ak ñoom bës ci sama kër wallaay bu ñëwee ñu nuyoonte mu ne ma ñii yow lanu soxla ma ne ko waaye sëñ bi yow itam jarul ngay déranger wu tabaraka wallaay baax lool laa biir dëkk nañu ay at maak moom tabarakallahu ba ci sama taaw ñoo ko ngénte si tabarakallahu maa ngi jaale Tayib Socé yaayam bi génn àdduna tabaarakallaahu sama ngénte fii sama taaw barki demb laa ko mayee ci raw du sëñ Babacar ñoom ñoo ko ngénte fii Haaj Madoun Thiam pharmacien Abdoul Latif Wan tabaarakallaahu Oustaz Tayib Socé Alioune Sall fi la yendu gis nga nit day fàttaliku démb Serigne Moustapha Sy Al Amin moo ko tudd si ànd ak waa Tiwaawoon yëpp ànd ak Ahmed Tidiane Sy Al Amin ñu ñëw fii Castor tudd si xale dogal fi ma dëkkoon foofu ci rue 13 bi booba takkaguma soxna nafi ñëw ànd ak borom këram kayta bi ñëwee nañ ma daan seetsee ñu toog waxtaan nafi ne ma man de dafa am benn concours bu ma bëgg a bokk mais concours bi nag jigéen mosu ko gañee ci senegal mais dama ko bëgg a def mais dama bëgg nga ñaanal ma ndax man dama am yaakaar ci yow ma ne ko aha mu ne waaw ma ne ko yàlla baax na xam nga mag ñi seeni secret fi leen ko bàyyi te ñun duñ ci commerce mais mën nañ cee dimbali ko am yaakaar ci ñun bi ma waxee loolu ma ne ko waa baax na mu ne ma sëñ bi dip maanaam concours bi jigéen mosu koo gañe ci kaw suuf muy diplôme inspecteur général d'état ma ne ko waa baax na daal koy jox bis mu ñëw yama préparé ci mbiru be ma jox ko ko ne ko boo demee nga jëfandikoo ko mu dem jëfandikoo ko ci ëllëg sa mu ñëw ànd ak borom këram bi ñu ñëwee moom Adja Nafi Ngom Keïta ne ma li ma joxoon sangoo naa ko mais nag bii ci guddi sëriñ Abdou Aziz Al Amin laa gént ma ne ko ah, am naa yaakaar ci ne li ma la ñaanal yàlla dana ko nangu mu ne ma ah moom day tabaarakallaahu ñu baaxoo ko jur waaye man politique bi muy def rek moo tax daal mu xaw a kii ma ne ko déedéet Adja gis nga sëñ ñabdu moomu moo ma yar moo ma may werd te bu ne ma woon suba ngay dee ma fay samay bor xam ne suba lay dee foofa laa foofu laa toll ci gëm ko mu ne ma yow day koo seedeel ak mbaax ma gëm ko waaye man damaa jàppoon rek sëriñ buy politique la ma ne ko nag nitu yàlla bu ne am na lu muy làqatoo te almachixatu la budda laha min siyasatil muluk loo doon doon sëriñ fokk na nga am maslaa ak nguur ñu waxtaan noonu tabaarakallaahu ah, ñu dem ba nga xamante ni concours bi jublu si dama war a yóbbu ay dossier am déposé ko seytaane dugg ko mu ne ah man daal dama ciy sonn mais duma ko am ne jëkkër ji ah man daal dematuma kayta daal di taal otoom ndeysaan ku baax la woon te am yitte te sawar daal di taal otoom daal di daw ñëw ndeysaan ne ma sëriñ bi mu ne waa ah, ma sa jigéen daal ma ne ko ci lan mu ne ma ah moom day nee na concours bi du ko def ndax da ciy sonn mais du ko am ndax di jigéen mësu ko am ma ne ko mais man duma sonnal ci mbiru ñaan ma ñaanal ko ba pare mu bañ a muy deltu gannaaw ma ànd ak moom dugg ci otoom ñu ñëw ba HLM bi ñu ñëwee ma fexe ba convaincre na fi bi ma ko convaincre ci la daal di dem nag def concours bi yàlla dimbali ko ci mbaaxam moom dong moo admise ñi ko doon wut ñëpp yàlla xañ na leen ko jigéen mosu ko am moo ko mas a am ci jigéen ci jamono boobu moo ko njëkk a am ci jigéen fii ci Sénégal mais yàlla boole maak moom ci li ma jàngee ci mag ñi ma jëflante kook moom yàlla sagal ma ci nangu sama ñaan mu ñëw sama kër fekk fekkuma fa moom ak borom këram mu benn benn bind benn kayit boobu célibataire la mu bind benn kayit dugal ko ci sama suufu bunt ne ma yàlla dogal na concours bi ma doon def gañe naa ko kenn ñaanalu ma nag ku dul yow ma ne alhamdulillah yàlla dogal suñu relation continuer rafet lool ba mu ba ñu mel ni sax benn famille loolu ay doomam ñu ngi fi daañu ko seede moom itam mu ngi fi génnul àdduna borom këram nag génn na àdduna tabaarakallaahu kayta yal na ko yàlla yërëm waaye bëri na lu nit di wax fekk da koy wax ci gannaaw nit fekk mu génn àdduna loolu mën nga caa sikki sàkk waaye di wax loo xam ne ki nga koy waxal mën naa taxaw ci micro ne li nga wax du dëgg ndax mu ngi dund wax dëgg yàlla loolu day wane la li ngay wax dëgg la yàlla dogal mu ne ma daal lii nga ma defal defal nga ma ko te weexalu ma la te fokk ma weexal la ma ne ko weexal amul suñu diggante seetal benn dibiteri bu ñu dem rek maak sa borom kër ñu reere fa bu mu doon sax restaurant. sant wi laal ak sàll duñ la. <laughs> wallaay ndeysaan wallaay gis nga boo xool boo xoolee booy kii ci raay bi nii ci HLM bi am na benn dibiteri bu nekk foofu booy dem ci sa côté ndeyjoor. foofu la dem fa la ñu reeree maag moom ak kayta muy reer bu simple macha allah nafi fi di ku baax ku am diine tabaarakallaahu ku diiñ ku yaru ku dëggu itam eh, yàlla dogal ci mbaaxu mag ñi secret boobu ñu amoon ci leen ko defal liñ ko defal ba mu yéeg fi mu yéeg tabaarakallaahu jamono boobu itam pour wan la rek waxuma sax ñi doon xalifa am lu ñu lu ñu téye waaye ñun ña doon fortaatu rek ca la ñuy waddal am na nu lu ñu mën a folle am na nu lu ñu mën a fale mais nag lépp luñ ci def dañ koy def ci jaamu yàlla waaye duñ ko xeexee duñu ko def itam ngir wut ci poñatum àdduna soxna na fi mosuma ko dendale soxla mosuma ko ñaan mosuma ko proposé dara ba fii ñu toog mosuma dem biroom toog na ci OFNAC ba joge fi mosuma dem biroom keroog bi muy mujj këram mooy bi ma nekkee bitim réew ñëw tabaarakallaahu jëkkëram génn àdduna ma dem di ko jaali tabaarakallaahu te ba léegi suñu relation mu ngi dox wante dafa am lu ma xaj ma dun ci am daan wax pharmacien daan na ma wax ne ma Cheikh Tidiane mu ne mu ne ma sama ànd ak yow li tax mu neex mu ne mu ne mu ne ma duma la gis ba sama fit rëcc ndax yow doo wax kenn soxla koo àndal rek yàlla tax nga ànd ak moom ma ne ko loolu nag sama sëriñ sëñ Abdou Aziz Al Amin moo ma ci yar daan na wax ne tabaarakallaahu lu ngeen di ñàkk bu mu doon seen dignité waaw moo tax côté boobu moom ku ci ànd ak ñun rek xam ne ñun euh, du ñu raatu kenn ni ko xale yi di waxee moo tax euh, léeg-léeg nit gis ma ma défendre Macky ci plateau ñu ne ma sëñ bi mbaadu dañ laa mosal te waat naa ci yàlla ne musuma wut audience ci Macky Sall musuma koo jéem musuma koo jox loxo ministre yi mosuma cee taxaw ci bureau kenn dégg nga yàllaa ngi dogal itam ñi ma xam xam ne ne bitim réew ba ma fa nekkee sax dama doon ñàq di dunde jom jooju laa am ci loolu laa nekk ba am kër gi ma am tabaarakallaahu kon ku may àndal rek yàlla tax may ànd ak yow kon bu fekkonte ne rek damay am fu may wéeru pour mën a am dara danaa wéeru ci côté Sonko ndax ni mu jegee na fi tabaarakallah ak relation yi ñu am mën naa faa am dara wante nag man mënumaa nekk nit koo xam ne damay wor sama damir sama conscience li ma gëm rek laa gëm man Macky mi nga xam ne yàlla boole na naak moom ci sama xol boole maak moom ci sama kilifa moom lay àndal mais nag du tee président Sonko président Diomaye ñu leen di ñaanal seen kay gi yàlla leen ci yàlla defal tabaarakallahu ak réussite ndax bu boobaa danaa ko yëg da nga ko yëg keneen dana ko yëg mais bu ñu leen ci ñaanalee safaan itam su boobaa danaa ko yëg da nga ko yëg keneen dana ko yëg kon yàlla na leen yàlla jàppale pouvoir boobu nga xam ne tey yàlla jox na ko wëluyu yàlla yi mu nekk ci këru diine yi ñun ñu jànge fa am na luñ ca for ma joxaat la beneen beneen euh, mbir ci loolu gis nga ne jamono bii nga xam ne defal naa soxna na fi lii ma ko defal te yàlla rek tax Assane Diop ministre waa Koungheul la man may waa Koungheul yow waa Saloum nga yàlla dogal dañ bi ñu xamante ñun ñaar moom itam mu ne ma sëriñ bi man daal danga ma doy ci wàllu ñaan ndax man duma dem ci kenn ne ko dama lay ñaanal no ma ko du ko proposé kenn waaye mu ne ma daal dama danga ma doy ci wàllu ñaan diw sàngam ce Koungheul kilifa la bëggoon na ma ñaanal waaye doyu ma waaye yow moom doy nga ma Assane Diop a ngi dund li may wax bu dul dëgg na ko weddi lii may wax ni 97 la jàpp 98 ma ne ko waaw baax na keroog ba may dem biroom maa ngi ànd ak Baye Moussa Niang al imam ci zawiya sëñ Babacar si ak mbayloo mi nga xam ne bras droit la woon ci sëriñ Abdou Aziz Al Amin booba ñun ñett daawu ñu taxali ko fu sëñ Mansour Massa na gis mbayloo ne ko ana Baye Moussa ana Cheikh Tidiane tabaarakallaahu ndax nim ñu xamee woon niñ daan ànde yàlla dogal itam Maodo si da baax yal na yàlla dëgëral ko te yokk wéram noonu la ñu xamee woon ci suñu ànd waaw ndax moom suñu bàyyi la suñu sëriñ la suñu lépp la moo tax kilifa gu ma xam fii ci ndakaaru rek mbayloo da koy xam Baye Moussa da koy xam keroog bi may dem building ci Assane Diop maak ñoom ñoo ànd Assane wax ma lii ma wax ma ne ko baax na yàlla dogal bi ñu ñëwee Euh, pour jàppale ko ci mbir mi tabaarakallaahu daf ma wax ne ma ministère bii ma nekk pour ma dimbali fi nit du yomb ndax barke bi fi waroon a am amu fi pour mu mën ci jàppale tabaarakallaahu samay mbokk jàppale ci sama dëkk moo tax ma bëgg a dellu sante ndax ablaay Wade dafa dugg ci gouvernement bi Abdou Diouf wàccee ma santé yóbbu fa Ousmane Ngom te santé nag am na ma caat moo xam ne mën nga ci dimbali kooku bëgg a dimbali ma ne ko waa baax na mu ne ma nag tabaarakallaahu remaniement bi fan yii la mu bëgg nga jàppale ma rek ma delluwaat santé ma ne ko incha allah bi ma ñëwee def yi may def ñëw fekk ko biroom ca saat mu ngi teg ay bagage am ne ma fu ne nii moom rangé le naa samay bagage ndax benn Abdou Diouf wàccee ma wala mu toxal ma yóbbu ma feneen yaa ngi dégg wala mu delloo ma santé mais man dellu santé moom a gënal ma ne ko incha allahu santé ngay dellu jox ko yi ma koy jox ne ko na ko jëfandikoo tabaarakallahu ba ma ko ko joxee mu jëfandikoo ko mu ngi remaniement boobu mu ngi tombeeg dernier bourdu maa ngi ànd ak euh, sama goro ak taawam Ablaye Diallo bu Sicap ci oto bi la dégloo remaniement bi bi ma ko dégloo tabaarakallaahu ci la ñu wax ne maanaam Ousmane Ngom delloowaat euh, maanaam euh, Assane Diop delloowaat nañu ko santé bi ne Assane dello delloowaat nañu ko santé ma ne alhamdulilah yàllaa ngi may sagal. kayfiya yooyu ñu amoon jële ko ci mag ñi ñun ñu ngi ci doon fal di ci folle ba bërki démb am na ko ñuy wax Fawad fa Fawad mu ngi euh, mu ngi asfiya yi dama waaju nekk Amérique sonn lool waa ji mbëru làmb la woon ku ñu xam la damay turam ndax daf ma wor mu ne faa waat wele wutal ma koo xam ne na dana ma jàppale ci lii may wut ndax dafa am kayit yu ma fii wut waaye mu tëma lool pour ma jot ci sëriñ bu ne weexal naa ko mu nax ma ma bëgg nag nga boole maag koo xam ne rek lu ma laaj danaa ko ko jox bu ma jotee ci kayit yi faa wax ma ko ma ne ko alhamdulilah li fi mag ñi bàyyi woon de mu ngi fi mu boole maag waa ji waa ji woo ma ne ma lu ma lay jox ma ne ko bu ma la ko waxee li ma lay ñaanal du am ma ma ne ko kuy ñaan sañuta jël caka muy ñaanal dara ndax bu fekkoon may mayee mën naa la wax ne boo ma joxee ma jox la waaye damay ñaan kon bàyyi rek ñu ànd yaakaar yàlla ñaan su ko defee nag la nga yéene ci sa xol te daan ko jëflanteeg te la nga yéene ne tey jii ku la jàppale ci lii ba nga am ko danga ma ko jox bu boobaa loola yaa ko xam ci sa xol ga jox ma ko ma defal ko li ma koy def ne ko yónnee ma sa adresse mu yónnee ma ko ma jox ko ko defe naa ni su juumul paas matul fukki fan kayit yam doon wut yépp yàlla teg ko ci ay loxoom tabaarakallaahu mu am lu ma yónnee lu tuuti ci xaalis ah lii de wuute na ak lam ma waxoon som bi mu tuddoon ci sama nopp de ak lii ma wuuteel wuute na lool ma woo Fawad wax ko ko Fawad woo ko waxtaan ak moom mu tëj téléphone am nangootuma jël man ma fàtte ñaan yàlla ne quoi kom ah, yàlla rek moo taxoon ma ko doon dimbali alhamdulilah yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga ma wuutu ci moom fayal ma euh, fay ma pour wan la tabarakallahu li ñu bëgg a gëmloo xale yi que ne sëriñ si mënuñoo fal mënuñoo folli yàllaay fal yàllaay folli ma wan leen ne ci ñett yi la yàlla di fal yàlla léeg-léeg mu falal boppam léeg mu bàyyi sax nitu zahir fal léeg mu bàyyi itam nitu boppam fal te secret yooyu ba léegi mu ngi fi tabaarakallaahu ba léegi mu ngi fi bëri na ku wax ne kenn ñaanaluma yàllaa ma jox fekk la mu am ci ñaan la jaarale waaye dafa xamul gémmiñ nga ko ñaanal ban gémmiñ la tabaarakallaahu dafa xamul gémmiñ nga ko ñaanal ban gémmiñ la tabaarakallaahu ba tax na danga nga bokk nit parti mu di nitu yàlla ndax euh, maa ngi fàttaliku alxaaji xalifa Guèye bu caaroy mooma njëkk a yóbbu Faas ma ziyaare ji Cheikh na ku bëgg Pastef la te man lu ma sant rek ma def ko jox na ma fi dog pour ñu ñaanal waa Pastef mais li may li may nekk nekk Macky Sall dama ñaanal waa Pastef tabaarakallaa ku ne la ndax ce ñaan googu la yàlla jaarale ba ñi falu kon nag ñi leen ñaanal bari na mën nañu wax ne demuñu Touba ñaani demuñu Tiwaawoon ñaani waaye njabootu Touba ak nag ñu ngi ne xas ci dëkk bi te itam am na ci ñu bokk ci ñoom kon nag tabaarakallaahu pouvoiru mag ñi mu ngi fi te ñoom xam na ne mu ngi fi ndax la koy dëggal mooy comportement bi Diomaye wane ca Tiwaawoon neex na ñëpp bi mu wane ca Touba neex na ñëpp gis nga Joma euh, Diomaye mu ngi ci biir xol yi te li ko waral mooy yaram ak tegginam tabaarakallaahu du tee nag toujours ma leen di yëgal ne man Macky Sall la ci biir ak Macky sax nekkatu fi waaye même bu defatul politique yaa ngi dégg man Macky laa man waxuma Amadou Sall laa de <laughs> Amadou Ba waxuma moom laa de man dama ne Macky Sall laa ku mu joxoñ ne kii la itam man moom lay jàpp mais nag du tee lii yàlla def nangu naa ko li leen di ñaan nag ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci pouvoir bi alxurru xurrun maa lam yatakallam gor su ne gor la feeg waxul te ñoom nag dañoo wax ñoo waxoon ne bu ñu faloo daañu dindi caisse noire ñu ngi leen di xaar ci pour ñu dindi ko ñoo waxoon ne bu ñu faloo foo ko yi nga xamante ni moo am ci douane ak ci impôt domaine daañu ko dindi ñu ngi leen di xaar ci loolu pour mu dañ ñoo waxoon aussi ne euh, poste bu ñuy joxe ci yenn post yu mag yi nga xamante ni xam-xam moo ko war a yor ak expérience bu mat sëkk daañu def xaw ma appel d'offre lañ koy xaw ma alors loolu itam wax dëgg yàlla ñu ngi leen ci xaar jotuñu defuñu ko nag fal nañ ñu bari mais defuñu ko waaye xëy na yi ci des peut-être ñu ngi leen ciy xaar waaye gisuñu ko ñu ngi leen di xaar ci ñu wàññi dund bi tabaarakallaahu ba léegi gisuñu ko te Macky Sall bi mu fi toogee matul ñaar matul weer mu wàññi dund bi ñu ngi leen di xaar itam ci xëyu ndaw ñi ak lu tax benn xale dootul jëlati gaal yi ñu ngi leen di xaar ci lu développé mbay mi ndax man sama mbokk yëpp ay baykat lañu tabarakallah ñu ngi leen de xaar ci réew mi am jàmm am sécurité tabarakallahu ñu ngi leen di xaar ci li fi makki jot a réalisé lu ko wattu ba bi Macky ñëwee fa mu fekkoon liggéeyu Ablaye Wade mu yóbbu ko fa gën fu gën a sori ba dolli ci leneen ñu ngi leen di xaar ci loolu wante nag coow dëgg réer suñu bëggee indi ay coow ci réew mi daañu dem ba dëgg ga taxoon ñu gëm seen projet ñu jaay ñu ko ñu jënd ko te su ma ko waxee itam mooy même man su ma nee Macky laa àndal ci sama njaboot ñu ci bari Diomaye la ñu àndal woteel ko kon nag ñooñu bu ñu amee lu leen neex am naa ko bu ñu ko ñàkkee ñàkk naa ko tabaarakallaahu kon ñoom nekkatuñu opposant léegi kilifa lañu ci réew mi war na feeñ ci seen comportement ñu lamboo muñ ga Macky daan lamboo saga nen ko bay bëgg a mais musul onk ña ko doon saaga sax amna ci ño xamne daf leen jéggal teral leen te yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lol la ko Kaab ibnu Zuhayr waxoon ah unbitu anna rasulallahi awaadani wal afu inda rasulillah mamulu wax ne ne ma yaronte bi tekkuna la ndax lu bon li nga koy wax waye nak lama gëna yaakar ci mom du moy mu mbéj ma wala mu may tëj kaso waaye la may yaakaar ci moom mooy dana ma jéggal dana ma baal dana ma teral kooku la yonent bi njëkk a yëkkati mantoom teral ko te da ko doo saaga yonent bi kon nag al afu indal maqdara kooku bokk na ci jikko yi gën a rafet waaw mën a fayu ba pare jéggale mën a fayu ba pare jéggale kon tabaarakallaahu euh, sëñ wilaan réew maa ngi noonu euh, ñun ñëpp ñoo ko bokk Eh, sëñ Abdou Aziz daan na wax ne kilifa dafay woote jàmm di wootal jàmm ndax jàmm jooju la fi mag ñi nekkee woon suñ tubaab tubaab bi dañ koo tooñ jël ko yóbbu fu ne ñu jaarale ko fi li lay wan ne nitu jàmm la ba mu dellu see ñu ne ko waaw li la tubaab bi def nag mu ne jéggal naa ñëpp hmm? Alaaji Malik nekk fi tubaab bi jàmm ju ñu yaakaar ci moom jis ko ci moom moo tax ñu ne ah kii daal jar def dara nen ko fi bàyyi mais nag jàmm jooju teewul woon teewul woon ñoom ñu am seeni principe te mooy lan doxal diine ji ak tariqa bi ba tabaarakallahu bu ëllëgee daañu am lu ñu mën a teg gis ci loxo ndaw ñi li ñu teg nag ci suñu loxo pusa la te mujjee pusa mu réer nag gàcce la kon nag foo ñu wax léeg ñu ne la bul wax soo waxee ñu saaga la kay ah kay sëñ Abdou Aziz Al Amin lu defar réew mi ak diine jëg tariixa bi tax na ñu ko daan saaga wax ju ñaaw ju ne ñu teg ko ci deram keroog ba mu demee barsax la Sénégal gépp taxaw ne ñàkk nanu ñàkk nanu koo xam ne li mu ni mu meloon ci réew mi ci defar kenn melu ko tabaarakallaahu kon bu fekkee ku mel noonu moo lay yar taxawaay bu mel noonu rek yow itam ngay am ci société bi